sénégalais buggul kuy avancé bàyyi di tontu ak daggasante mais comme que loolu moo ko arrangé moom ak tontu ak wax ah dama koy seetaan mu wax tontu ndax ku nekk yaa xam fa nga toll sa xol mu di ko def mais bu defoon li ma ko digal rek wala li ma ko xelaloon lii lépp du am Sénégal nag am na ay Baltazar yu war a génn Baltazar bu gine ngeen gis déedéet bari na ay Baltazar Sénégal ñoo xam ne dañoo kat ay jaboor jaamoor euh, kat li nga xam ne moom ñoo mooy ay secrétaire seen i mindaan kat ci ñi nga xamante si nii Balthazar Sénégal di dinañ ko génnee dina am incha allah parce que bëri na euh, beneen bi ñu tegu ñu may clamé ci ubbil Mbarka Ndiaye dencal Mbarka Ndiaye sanaan si bu bees boobu jigéen ñi wax ubbil Mbarka Ndiaye Mbarka Ndiaye moom képp ku ci ubbi ca Mbarka Ndiaye dañuy jël Ablaye Ndiaye roof la ko waaw dans neuf mois rek waaw nga jur nit njaay génn ci sa waay dafu leen sax léegi yéen ñu xaar connexion live bi léegi-léegi ci Baltazar ak Sénégal yi ci bokk